mu xamal leen ne leen bëgg na yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci liggéey bii ngeen gën a góor góorluwaat gën a fabuwaat gën a laxasaaywaat te xam nga am ngeen sasu rëy mooy lii ñu leen dénk te ki ne ci bopp ba di sëriñ Abdou Ahad Ka moom ñi nga xam ne yàlla def ne mu newoon fi te li ko fi tegoon nit ñépp xam nañ ko bi yàlla def tànnee fi jub siwaat itam Serigne Sidi moom dafa waxoon ne day diglu ndigalul Cheikh mu Mountakha ndax amutul bëgg amutul bañ amul lu muy ñoddi amul lu muy jañ lu ci sëriñ bi santaane daal ñu def ko bu nee nañ ko wéyal ñu wéyal ko bu nee nañ tànn keneen ñu tànn keneen leneen lu mu ko waxee nam ko ko waxee noonu la koy wéyale ba yàlla def ba mu demee ba jege sëriñ bi yónni doomam sëriñ Moussa Mbacke mu Cheikh Mouhamadou Moustapha Bassir yónni ko ci sëriñ Sidi mu fekk ko ca Darou Salaam bukki barka jottali ko di ko sëriñ bi yónni ci moom man boo fekk ne néew ma fi sax xamal ko ne ko nee ko na ko Cheikh Sidi Moukhtar jëloon lépp jëm ci dëkk bi dénk ko ko mi ngi ko yeesaa di ko ko fedd di ko santit nag ci liweesu ci liggéeyu dëkk bi nee na xolam sedd na ci rafet na ko nee mu ngi la ci nee nee na na ko it nee na ndam loo ci amoon nga am ci ndamaat du ko loolu mooy kàddu sëriñ bi ba mu amee itam ci la sëriñ Sidi daal di wóolu ab laxakat yi ne ko kat ndegam yàlla def na liggéey boobu sëriñ bi di wax ci sa loxo la ne woon te yónni na sëriñ Moussa ak cant ci man ak ngërëm te liggéey ba lépp yaa ko def kon amul lu may soppiwaat ndax yàqoo fi dara comme yàqoo nag lu yàqoo di su ko soppee kon wéyalaatal ma liggéey bi daal ko yebal ci man fekk boobu nii mu fi dama génn waaye loolu kon mooy liy sababu ñu tegaat ko fi jataay bi moo tax njabootu sëriñ Touba gi fi newoon gépp tàmbalee ci bi nga xamee ne ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nekk na fi Serigne Touba te yàlla def li ñu daa tuddee commune Tiraal la xew ci xilaafam na mu ko daan tànne mooy mboolem kër doom Serigne Touba fenn fu ci ne mu jëlee fa kenn dugal ko ci biir. mboolem ñi nga xam ne seen maam yi ñoo àndoonoo Serigne Touba gor dëkk bi mu dugal leen ci biir képp koo xam ne mën na la ca doole ca nga ne ci biir dëkk bi tam mën na indi dara ci dëkk bi ci lu baax nag ñu dugal la ci biir waaye loolu mooy li cosaanu liggéey bi lu ci yokk rek da ci yokkuwaat ba yàlla def mu ne fi ba bàyyi ko fi Cheikh Abdoul Khadim Mbacké ñëw yàlla def na ay élection jut fee jaar ginnaaw bi itam Serigne Issa Diop Mbacké ñëw ba mu mu woyee wóyeelaat liggéey bi di ko tànnee noonu nga xam ne mas na ko waxal boppam ca rajo ñëpp yi dégg kon loolu fàtte xaju fi noonu la ko daa tànnee ba mu bàyyi koo fii yàlla def na Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw moom itam tànne ko noonu ba bañ koy def sax yàlla def na ci sama loxo la ko tegoon ma toppoon ci na ko sëriñ saa yu tànne woon rek mu wéyalaat liggéey ba noonu lañ ko wéyalee. ba yàlla def ak Cheikh Sidi Muxtaar ñëw moom itam mu wëyelewaat ko na ko kilifaam yooyu defoon ba Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ñëw moom itam la mu waxoon rek lépp lu ma fekkoon ñu def ko dama koy yokk waaye dama ko wàññi kon loolu mooy mooy li indi liggéey bi kon nag yéen ñi nekk ci biir liggéey bi na ngeen gën a góor góor loolu la sëriñ bi wax neen na ngeen gën a góor góorgóorlu te yeesalaat seen i laxasaay yeesalaat seen i posté te xam ne sas wu rey ngeen am ndax takkilif la waaye du tashrif responsabilité la waaye du daraja adduna dafa yàqu lu lu lu lu lu yàgg rek seytaan dina ci jéem waaye mbirum Sëriñ Tuubaa seytaane moom ci dara amatul lu lenn lu nit mën a wax ci li sëñ du wax ku ami bët jërul wax ma nga ne ndax ni nga ko gisee la koy gisee ku amati bët jërul wax ma nga ne ndax boo ko wanee di ko gis mm. waaye ubbi bi ko Cheikh Abdou Latif ubbil ak wax ji Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadir wax ko fi ci kanam sëriñ Amsatu sëriñ Mahamadan sëriñ ko Koso ak ga kilifa yi teew képp ku am ak dégg mënatoo koo wax lu raw loolu ku amul ak dégg jërul dolli dara ndax boo ko dollee da ngay wàcc say kon nag li ëpp solo ci ñun nga xam ne moo waral tey ñu toog fii mooy ci ndigal rek lañ nekk ndax loo xam ne bu doon jaay dante yor nga njëg doo dem jëndi ko su doon lu ñuy laaj bindab leeta di ko laaj donte mën ngaa bind am nga kayit am pilim doo dem bind doo bind ab demande ko laaj bu fekkoon ne lu ne ku ko ku ko bëgg na dem laaj ko ñu jox ko doo dem ne jox leen ma ko waaye ndigal nag dangaa toog ba sa sëriñ yaakaar yi àdduna ak alaxira ñëw na la damaa bëgg nga jël lii liggéeyal ci Sëriñ Tuuba loolu te ndigal moom man Abdou Lahad day na ko sama maam yi ak sama baay daan dund laa koy dunde ndigal soon la ko joxee bool ko laaj sëñ Abdou Lahad digaloon na leen bu leen laaji ndigal waaye buñ leen ko joxee na ngeen ci gàtt seen bakkan loolu rek lañuy dund loolu nag moo waral jotaay bii tey